fukki weer ginnaaw bi ñu dooree liggéeyub lycée Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke bi nga xam ni ngi nekkee ci Touba ci biir Tokor bi ci Daarul Xuddoos chantier bi mi ngi avancé bu baax a baax li nga xam ne moo jëm ci rez de bi noppi na. rez-de-chaussée bi fi mu ne mën naa ni presque pare na euh, il nous reste que faire coulage bi ñu def coulage bi moo ci des su ñu defee coulage bi après ñu teg premier niveau bi bu ñu tegee premier niveau bi incha allah mu des ay finition ñu finaliser ko. lycée bi ñu cour bi ci digg bi lay nekk mu am batiment bu administration bi di nekk ak yeneen bâtiment yi nga xam ne mooy salle de classe yi nga xam ni rez de bi fukki classe lay am. bu ñu wax école moom administration moo jiitu mooy corps professoral bi corps professoral bi mooy bâtiment bii nii mooy ko bâtiment administratif ci biir batiment bi am na bibliothèque am na bureau directeur. am na salle salle des ak salle de réunion bâtiment bi tamit dañu ko def position boo xam ni comme ni ñu leen ko wane woon ca début bi position wu bâtiment bi c'était juste que pour mu nekk ci entre bi nga xam ne ki nga xam ne day ñëw ci biir école bi DG bi nga xam ne moom la soxla wala ba comme soxla ci port professorat bi dem ci lim bëgg a def ci foofu mu def ko pare te du jotee ak élèves yi dara moo tax moom moo nekk ci entrée principale bi soo jugee ci bâtiment administratif yi am na bâtiment salle moo ci des salle am bii nii mooy Euh, B bi bii mooy bloc C bi book bii mooy bloc C bi di bloc B ñaari bloc benn bu ci nekk trois salles de classe la am bloc bu mag bii nii mooy bloc D am na quatre salles de classe bloc D bi am na quatre salles de classe au total boo leen boolee dix la. dix salles de classe la am ci rez-de-chaussée bi bu ñu amee dix ci rez de bi dañoo war a amaat aussi dix ci premier étage bi au total batiment yi R plus 3 la war doon. mais première phase bi R plus 1 lay doon R plus 1 boobu noonu ci suuf rez-de-chaussée bi dañuy am 10 salles d'étage première première 10 salles de classe boog 10 moins première étage bi ñu am 10 au total ça fait 20 esplanade bi mën naa ko waxee parce que cours bu mag la boo xam ne nii élèves yi saa bu ñu génnee ci sa bu ñu génnee ci seen récréation ni ñu ko mën a waxee bu ñu génnee ci récréation fii la ñuy ñëw ci esplanade bi esplanade bi grande cour la boo xam ne boo xam ne dana mucc ayib avec euh, dana am garab yoo xam ne macha allah euh, vue bi dana dana dana am solo defar nañ fi defar tamit boo xam ne dana am nii ci ci côté bi dana am benn penc xam ne élèves yi saa bu ñu fii la ñuy ñëw loo xam ne soxla nañ ko mën nañ ko fi def te kenn du ci am benn problème du ñu am benn contrainte ci ginnaaw aussi euh, am na bloc toilette toilette yi am nañ toilette pour garçon am nañ toilette pour homme am nañ toilette pour femme moo ne ci ginnaaw bloc bloc yi benn bu ci nekk douze lay def au total ça fait vingt quatre yooyu nga xam ne élèves yi bu ñu bu aussi foofu la dem foofu duñ ci am benn problème aussi te toilette yi am na pour handicap am na aussi pour yeneen yi ci des nga xam ne handicap bi aussi danañu gis seen bopp baax baax ci école bi duñu am benn problème par rapport ak euh, xëy na yeneen contraintes yoo xam ne dina am ñoom ñëpp ngi leen bàyyi xel ci loolu lycée bi dina am lu toll ci ñeent fukki classe yoo xam ne ci ñetti étage lay doon ñaar fukki classe yi ñu war ko livrer laa tey octobre 2022 bi ngir élèves yi mën a door seenum njàng. RPS 3 la war a doon te bëgguñu retardé am Euh, au fur et mesure ñuy dem euh, ñu defaat yeneen bloc de classe yi bloc yi nga xam ne mooy des euh, bu école tëjee ñu entamer waat beneen phase bi teg benn niveau er, deuxième étage bi doxalaat ñu am trente école tëjaat ñu doxalaat ñu tegaat beneen troisième bloc bi au total ça fait quarante de classe kon liggéey bi nii quarante salles de classe la war doon. mooy octobre incha allah ci ouverture yi ñu mën a joxe vingt salles de classe yooyu élèves yi mën ci commencé début mën ci i cours ñu mën ci jàng mois d'octobre bi d'octobre octobre bi incha allah dañu bëgg élèves yi jàng ci vingt salles de classe yooyu noonu. ay entreprise yu xarañ te mën lool li ñuy def ñoom lañ dénk liggéey bi te lépp lu ñu leen ci sant te sëriñ bi bëgg ko ñu ngi sàmmoonte ak moom. ñu ko jox entreprise bu ñuy wax Afribat Pape Fall jiite ko mu nekk entreprise bu mag boo xam ni ci yoon wi aussi ràññee nañ leen ci liggéey mucc ayib yi ñuy def ñoom ñooy saytu seen doxalinu liggéey bi tamit doxalin bu mucc ayib la parce que huit heures la ñuy xëy seize heures la ñuy wàcc. si huit heures de huit à seize loolu mooy heure bi nga xam ne mooy heure de travail bi dañu koy respecté tout le temps parce que mooy tax sax ñun liggéey bi nii nga mën a xool xam ni ñii ñi ngi avancé parce que par rapport ak bi ñu démarré soo ñëwee fi xool liggéey bi di nga xam ne y un avancement mbooleem liggéeyub lycée bi ànd naag saytu gu mat ñi nga xam ne ñoom lañ dénk lu ni mel saa su ne ñu ngi ñëw ci chantier bi di ko saytu ndax ñu ngi respecte qualité bi. Euh, toujours ci côté structure bi nga xam ne ci la charge bâtiment yi di tege muy poto yeeg poutre yi semelle et autres yooyu noonu ci la ñuy veillé à tout instant waxtu wu nekk bu ñuy kuule du ñu kuule 1000 mètres cube de béton du ñu ko kuule te demuñu labo defar ay moule yóbbu ko labo xool ba xam. est-ce que béton bi am na am na proportionnel la par rapport ak li nga xam ne moom lañ soxla loolu dëgëraay boobu noonu dañ koy soxla tout temps te gis nañu ne par rapport ak aussi résultats yi ñuy am par labo bi eh, satisfaisant ce sont des résultats satisfaisants yooyu kontaan ci ça veut que kon li ñu soxla ci ci bâtiment bi pour l'instant nii ñu koy amagum. te li ci ëppaat solo aussi mooy saa boo xamee ne dem nañ ba ba rencontre benn problème gis nañ ni lii nii c'est pas bon par rapport ak li ñu soxla woon dañuy bu jaree démolir sax dañ koy démolir. chantier bi nag lépp loo xam ne laaj na ko ci ay études def nañ ko seenub yéene mooy liggéey bi su àggee képp koo xam ne bëgg naa tabaxati lycée mën a ñëw roy ci tabax yi. liggéey bi nag comme ni ñu ko waxee woon ca njëlbeen nga rek bi ñu teg xeer wi liggéey la boo xam ni ci côté professionnel mboolem li nga xam dana tax liggéey bi mucc ayib dana tax liggéey bi mën a yàgg lépp ñu taxaw nañ ci suñu kéemtulaay kàttan ci côté architecture bi def nañ ci liggéey bu rafet ànd kook mbooloo mu bëree bëri ci côté fii études géotechniques yi muy ci wàllum suuf si ndax bâtiment boo koy def bala ngaa teg dara ci suuf si da nga war a xam suuf si capacité portante bi nga xam ne moom lay am def nañ étude boobu ànd kook benn entreprise bu ñuy wax kafek ci ginnaaw bi loolu jàllee aussi ah, def nañ yeneen étude muy ci étude côté structural bi muy béton armé yi élément porteur yi yooyu tamit ñu ànd kook Seventy di entreprise boo xam ne entreprise bu mag la ñoom ñu def euh, liggéey bu mucc ayib ci wàllu woowu noonu yemuñu ci ci côté loo technique aussi maanaam plomberie informatique sécurité incendie électricité yooyu yëpp aussi ànd nañ ci def ci liggéey bu mucc ayib ànd kook entreprise bu ñuy wax Siram siram lañu ko àndal ñoom tamit ñu def ci liggéey bu rëy loolu lépp tamit taxul ñu arrêté maanaam ànd nañ benn bureau de contrôle boo xam ne moom la ñuy wax alpage. ko aussi Corex nekk benn entreprise bu mag boo xam ne nii aussi ñoom chaque mardi fii la ñuy def ay réunion hebdomadaire réunion yooyu suñu ko defee ñoom lañ ci àndal ñoo ñu jàppale ci liggéey bi bu ko defee saa bu ñu réunion dinañ def PV ci li ñu war a waxtaanee ci liggéey bi fu mu toll. dañ ko defee yónnee ko suñuy supérieur Serigne Moustapha Mbacke Asuburi mu Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma àndoon ak ñenn ci fondation Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma bi ñëwoon doon nemmeeku si liggéey bi ci samedi bi dëppoo woon ak le 21 mai 2022 ginnaaw nemmeeku googu mu santaat bu baax a baax ci chantier bi ni nga xam ne noonu lay doxee sant waa Jabhatul Muridiya bi nga xam ni ñoom ñooy saytu liggéey bi. ñu ngi ciy jiital maam Cheikh mi ak ñi àndal wax na ñi nga xam ne dañ cey jëf lépp te def ko àddiya waaye ñoom ñoo ci jiitu liñ ci def lépp coono bu mag a mag lañ ci def nun neguñu lu bañ àggalee ñu ñëw nañu lii kat mooy rapportu euh, appel d'offre yi jot offre yi jot plutôt nga xam ne nun daanaka signé contrat bi donc lañ ci def waaye lépp ñoom ñoo ko def ñii doon def études yi ñoom ñoo wax ak ñoom ñu def études yi def ko addiya waaye ñoom li ñu def ci seen wàllu bopp moom waxu ko dafa wax rek li ñu def waaye ñoom it lañ ko def te ñoo ñoo jiitu moo jiitu loolu lépp kon nag il faut ñu sant leen euh, waxtu wu nekk ñi ngi fi te am na leneen lu ñuy def donc loolu lu métti la xam nañ ko waaye kii tax ñu di ko def euh, yàlla na leen fay ci fàttali lycée Serigne Mouhamadul Moustapha Mbacke bi nga xam ne moom lañ taxawal ci Touba Darou Khoudoss ñu ngi teg xeeru njëkk wi le 7 août 2021 liggéey bi ñu dooroon ko ci le 22 décembre ci même at mi fondation Serigne Cheikh Mbacke Gaynde ma ñoom ñoo ko financé di ko liggéey ci njiital Serigne Abdourahmane Mbacke mi nga xam ni moom mooy xalifaam